mbokki internet euh, Mak TV Sénégal nuyu nañ leen di leen daan ngeen dal jàmm si seen euh, xibaaru tey yi ñu fas yéene nag euh, daal di tàmbale ak li nga xamante ni moo xew fële ca Kër Massar mu di rek benn góor soo xamante ni mu ngi am rek su tolloog fanweeri at moom nag li mu def mooy rek daal di jël ki nga xamante ni ah, moo di ab jarbaatam bu jigéen boo nga xamante ni moom fukki at rek la daal di am mu daat kay def rek di ko sàqu moom nag mu daal di jël xale bu jigéen boobu rek daanaka daat kay def sax un objet sexuel di ko rek sàqu rek saa su ko soobee loolee nag mu ngi amee foofu nga xamante ni mooy ca Kër Massar ba tax na rek ki nga xamante ni ah, moo di ah, xale bu jigéen boobee sax xale bu góor boobee nga xamante ni moo def loolee ñu ñi daal di xamal ni sax moom moomee amoon na jabar waaye nag amul woon ah, doom ba tax na rek gannaaw bu nga xamante ni daal bett nañ ko si xale bu jigéen boobee si lañ ko rek daal di jël daal di koy yóbbu ba tax na rek moom moomee jamono ji sax mu ngi rek ñu yóbbu foofee nga xamante ni mooy pour parquet bu nekk Pikine Guédiawaye liñ koy toppee jamono ji moo di pédophilie ak viol multi multiple moom moomee sax nga xamante ni moo def boobee jéeya bu ñu sukkandikoo nag si journal bi nga xamante ni moo di euh, libération gannaaw ba nga xamante ni euh, déglu na xale bu jigéen bi nga xamante euh, gannaaw nag ba nga xamante ni déglu nañ xale bu jigéen bi nga moom la doon sàkku xale boobee sax ñuy daal di xamal ni moom nag li mu daal di xamle mooy que ni ki nga xamante ni mooy nijaayam boobee papa moo ko daal di dénkoon ndax moom moomee dafa ko xamali woon rek ni moom moomee sax moom la ko daal di dénk ndax kat ki nga xamante ni moo di waajuram mooy ca étranger pour rek daal di fay waaye nag ki nga moo di nijaayam bi mu ko dénkoon da ko juloon rek di ko daal moom nag muy xale bu jigéen bi daal xam la ko nijaayam boobee ba tax na jamono jooji jamono ji nag pour rek mu wax ñu lim bu nga xamante ni ci la ko sàqu moom moomee du ndax kat da doon rek bàyyi ba nga kër gi wéet na mu daat koy jël daat koy yóbbu ca néegam gannaaw gi nag 100 francs la koy daal dox ba pare nag daal di koy menacé wax ko rek mu daal di nopp une fois wax ko kenn rek moom dafay rek daal dal ci kawam loolee nag gannaaw ba nga xamante ni am na bés boo nga xamante ni daan na koy jël ah, ba dugal ko ca néegam noonee nag la ko waajuru xale bu jigéen bi daal di koy bett foofee sa saase nag la daal di saisir li nga xamante ni moo di justice ba jamono ji daal mu ngi ñu daal di euh, placé foofee nga xamante ni mooy ca parquet bu nekk ca Pikine euh, euh, parquet bu nekk ca Pikine Guédiawaye bu ñu jógee ci loolu nag dañuy àddu rek daal di wax ci leneen ndam ba fa li nga xamante ni mooy ca Touba wax nag ca beneen jéeya bu nga xamante ni daal nañ ko fay nemmeeku mu di benn xale bu jigéen bu nga xamante ni mu ngi am rek sul tolloog fukki at moom nag moo daal di pendre boppam ca néegam bi nga xamante ni foofee daal di dëkke loolee nag mooy xew ndiki démb ca alxames bi ca quartier bu Jannatul Mahwa nekk foofee nga xamante ni mooy ca euh, Touba Mbacké nag mu ngi xew gannaaw ba nga xamante ni xale bu jigéen bi nag moom euh, dugg na ca néegam noonee gannaaw ba nga xamante ni nag toog nañu gis ñu nañu ko ca lañ daal di xool ca ba fekk ko rek mu daal di euh, pendre boppam moom nag bu ñu sukkandikoo si ay jege ñaalem xamuñu carrément lan moo rek moo waral ki nga xamante ni moo di xale bu jigéen boobee euh, daal di euh, pendre boppam waaye nag koor bi nga xamante ni moo di kooram danañ ko jël ba yóbbu ko ci hôpital ba pour rek xool naka lan moo daal di faat boobee xale bu jigéen waaye nag jamono ji ñoo ngi ñuy daal di xamal ni amul benn enquête boo xamante ni daa dañ koy ubbi pour rek déterminer lan moo waral mu daal di pendre boppam genre yooyu jiyee nag si fàttali àllarba bii rek ñu génn moom amoon na beneen boo nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko fële nga xamante ni mooy ca yang-yang nekk ca département bu Linguère foofa it benn xale bu jigéen bu ñuy woowee Xarjata Ba moom moo daal di euh, pendre boppam ca benn garab euh, foofe nga xamante ni mooy ca yang-yang mu mel ne nag yooye mbir jamono ji ñoo ngi koy bëgg di nemmeeku yu tax ko fi nga xamante ni euh, mooy ci biir Sénégal ñu jóge ci loolu nag euh, daal di euh, ñëw ba waat fi nga xamante ni mooy ci Dakar damba fa li nga xamante ni mooy ca Kër Massar wax nag ci saisir record de faux billets bi nga xamante ni euh, moom la ñu saisir woon foofee nag gannaaw enquête yi nga mi di gannaaw enquête yi nga xamante ni ñu ngi koy continuer di wéyal nag am na moo xamante ni moom daal nañ koy teg loxo ñu ko daal di teg loxo nag moo di gendarme gendarmerie mi nekk foofee nga xamante ni mooy ca Kër masaar kookee nag ñu ñuy daal di xamal ni sax moom ab nationalité ne la yor moom nag ñi nga xamante ni ñoo di waa gendarmerie nag ñu ko tendre pièce gannaaw ba nga xamante ni dañoo présenté wu comme ay clients yu nga xamante ni dañoo bëgg li nga xamante ni moo di ay faux billets noonu nag lañ joxante rendez-vous fa li nga xamante ni mooy ca Brioche euh, ñëw na foofee si lañ ko rek euh, daal di euh, teg loxo ci fàttali nag saisir somme bi nga xamante ni moom la ñu saisir tolloon na rek si 475 millions francs CFA si suñu ay koppar kon nag ki nga xamante ni moo di camerounais boobe moo nekk nag juróomeelu personne boo nga xamante ni daal nañ leen teg loxo ca boobee boobee mbir ñu jóge ci lool nag daal wax ci leneen wax nag ci coow li nga xamante ni daanaka jamono ji moo topp ki nga xamante ni moo di euh, Wally Seck gannaaw rek benn concert bi nga xamante ni moom la doon amal ba ñu nemmeekoon ca gannaaw euh, benn ay couleurs yu nga ni daal euh, ñu bëri rek dañoo jàpp ni couleurs yooyee nag dafay dafa nduroog couleurs yi nga xamante ni moom la waa LGBT di daal di amal moo di ñooñu nga xamante ni ñu yëngu ci wàllum homosexualité waaye gannaaw ba nga xamante ni mbir boomee nag am na kii di Wally Seck moom génn na ba daal di démentir yooyee mbir gannaaw ba mu xamlee ni nag loolee takkewu si laalewu si waaye it ba mu jógee ci loolu dafa rek daal di saisir ngir justice daal di porter képp koo xamante moom daal dinay joxoñ baaraamu tuuma Wally Seck pour rek ca yooyee mbir goone nag ba mu ko porter plainte ba mu déposer plainte yi waa section ni ñoom la na it euh, si site yi nga ni tolloon nañ si fukk site ni euh, na nag gannaaw ba nga xamante ni coow lee judd na ñu bëri nag daal nañuy addu daat si jëmale bokk na si ki nga xamante ni moo di Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall nag nekk ab journaliste journaliste bu ràññee ko fii si biir Sénégal nekk ci télé bi nga xamante ni moo di TFM moom nag daat nay addu daal di wax ca boobee mbir moom Aïssatou Diop Fall ni moom nag fans Wally Seck dëgg la boo nga kenn daatu ko den doonu ko natable moom nag li sàkku rek ci ki nga xamante ni moo di fansam boobee mu xoolaat li nga ni rek moo di entourage am fexe rek ba daal di def attention ci yooyee mbir ndax kat moom Wally Seck nekk na ku nit ko nga ni moomatul boppam ndax kat nekk na ko nga xamante ni sénégalais yi ñoom ñëpp dañ koy rek daal di déglu ba pare nag nekk ay soppeem ba tax na nag Aïssatou Diop Fall mu ngi sàkku rek ci ki nga xamante ni euh, moo di Wally Balago Seck mu xoolaat li nga xamante euh, daal ñu mu bëgg rek mu xool naka lay def rek ba doot ñu ko si tuddati ndax kat moom Aïssatou Diop Fall xam la ni Wally Seck nekk na artiste bu xamante ni daal nekk na ko nga xamante ni nit ñi naw nañ ko fii si biir Sénégal waaye nag moom nekkul ki nga xamante ni moom rek mooy benn artiste fii si beneen si biir Sénégal ba tax na moom yooyee mbir nag bokk na si ñoo xamante ni daanaka saa yu jubee rek dañ ko si daal di tudd ba tax na daal euh, ki nga xamante ni di Aïssatou Diop Fall li mu bëgg rek mooy que ni euh, kii di Wally Seck mu xoolaat entourage am te def attention bu baax ci yooyu mbir yoo xamante ni daal ñu ngi ko si euh, daal di tudd loolee nag moom ko amal gannaaw rek euh, émission matinale bu xamante ni ñu ngi koy amal foofee ca TFM ñu wéyandi ba tey rek ci xibaar yi daal di wax ci leneen wax nag ci wàllum politique wax si ki nga xamante ni ah, moo di Idrissa Seck Idrissa Seck nag daanaka ay lu tollook weer a ngi nii rek kenn gisu ko euh, dégg ko ah, moom nag Idrissa Seck du ñu sukkandikoo rek ci journal bi nga xamante ni moo di dakaar Post gannaaw nag ba mu xam ne nii moom nag ah, nu ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi daal di xam ne nag yi di Idrissa Seck moom jamono ji mu nga fële nga xamante ni mooy ca France li ko fa daal di yóbbu nag mooy que ni wér gi moom dafa xaw a taggatémbe ba tax na rek ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck daal euh, mu ngi foofee nga xamante ni mooy ca France Dakar Post nag bu ñu sukkandikoo moom euh, di tournée euh, économique ba tax na daal jamono ji moom dafa am feebar boo xamante ca gorge ba maanaam ca put ba daal daal nekk ba jamono ji daal mu ngi foofee nga xamante mooy ca France di daal faju ñoom waa Dakar Post di ñu xamal ni ba tey rek moom Idrissa Seck sax boobee xeetu feebar daloon na ko jamono ji nga xamante ni mu ngi woon ca nguuru euh, Abdoulaye Wade ñu jóge ci loolu nag wax ci wàllum yoon wax nag ci cool yi nga xamante ni moo dox ci diggante kii di El Hadj Ndiaye ak télévision Futur Média gannaaw rek ay euh, signal yu nga xamante ni jàppoon nañ ni kii di waa TFM dañ ko daal di woon euh, sàcc ba tax na rek kii di El Hadj Ndiaye moom porté woon leen plainte moom nag gannaaw ba nga xamante ni porté woon na leen plainte kii di Ndiaga Ndour nag xam ngeen ni barki démb dañ ko téye woon foofee nga xamante ni euh, mooy ca parquet ba waaye nag ki nga xamante ni mooy njaganduur Ndour nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko ndiki démb lañ ko rek daal di bàyyi mu di euh, ñibbi euh, këram waaye nag kookee di njaga moom jamono ji dañ ko rek daal di placé sous contrôle judiciaire ki di juge bu huitième cabinet li ni moo moo ko wala sax nga ko yoon waaye nag jamono ji daal li am ba am mooy que kii di Ndiaga Ndour daal dañ ko rek daal di placé sous contrôle judiciaire ba tax na rek li nga xamante ah, moo di passeport am sax dañ ko daal di confisqué waaye nag ajuma bu jot moom dafa war a rek fa li nga mooy ca par euh, ca cabinet juge ba far euh, di fa signé pour rek euh, ñu xamal ni pour rek mu mën a firndeel teewaayam a fii si biir Sénégal. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy wax nag euh, ci li nga xamante ni moo di euh, mbas mi di coronavirus ak troisième vague bi nga xamante ni daanaka mbëkk na euh, Sénégal ndax kat bu ñu sukkandikoo ci lim bi nga xamante ni waa ministère ñu koy daal di publier daanaka lu tolloog semaine yàlla dañ see gis rek maanaam yokkute bu doy waar bokk na sax lim bi nga xamante ni moom la ñu génnee ndiki tey ndax kat bu ñu sukkandikoo si communiqué bi lu tolloog 476 doomu aadama lañu daal di testé mu ñu daal di positif gannaaw ba nga xamante ni test yooyu amel nañ ko si lu tolloog 2004 2104 doomu aadama ci noonee nag 215 yi nekk ay cas contact suivi yi nekk ay cas issus de la transmission euh, communautaire jamono ji ñu wax ak yéen nag lu tollook 102 patients war nañoo génn ca lalu hôpital yi ndax kat faj nañ leen ba ñu wér ba war a génn foofee nga xamante ni mooy fañ leen daal di téewoon am na nag lu tollook 19 cas grave yoo nga xamante ni euh, jamono ji ñu ngi ca lalu euh, sauvetage yi loolee sax tax ba ñi nga xamante ni ñoo nekk ca wàllum wér-gu-yaram bi daal di xam na ni ñi nga xamante ni mooy di lii yi nga xamante ni maanaam lal yi nga xamante ni moom lañu réserver ñi nga xamante ñoo nekk ca service réanimation yi jamono ji dafa rek daal di xat ndax kat amatuñu euh, lal yu nga xamante daal mën nañoo contenir ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ca service de réanimation yi ba tax na euh, jamono ji daal ñoom nag dañoo nekk ca njàqare kon nag euh, gën ba su démb am na lu tollook rek ñetti doomu aadama yoo xamante ni ñoom it daat nañ si ñàkk seen bakkan gannaaw ba mbas mi dugg see Sénégal ba tey nag wàññi nañ si lu tollook 45 266 cas positif ca noonee ñu mille quatre vingt am na nag mille cent quatre doomu aadama yi nga xamante ni ñoom euh, jot nañ see euh, ñàkk seen euh, bakkan mille neuf cent quatre-vingt-huit jamono ji ñoo ngi ñuy faj si lalu hôpital yi. xibaar yi ñu daal di koy jeexalee nag ak xibaaru bitim réew dem ba fële nga xamante ni mooy ca bi foofee nag daanaka hivernage bi moom maanaam nawet bi ah, nu mu tàmbalee foofee daal ah, dafa rek daal di métti ndax moom am na ndiki démb rek ay taw yu métti métti yoo xamante ni dafa ànd ak ay ngelaw yu métti yoo xamante ni daanaka moo daal di ravager dëkk boobu ba tax na rek lu tollook fukki doomu aadama daal nañu xam ne ni rek ñoom ah, daat nañ si ñàkk seen bakkan ba tax na daal jamono ji ñu wax ak yéen am na lu ay lu tollook daal ay milliers de doomu aadama yi nga xamante ni ñoom ñu ngi dugg si ay kër ma ak ngelaw ba da ko daal di yóbbu ah, ba jamono ji nag ñuy wax ñoom si ab njàqare la ñu nekk ba tax na ndiki démb sax ñi nga xamante ni ñoo di yi moom dañoo rek daal di woote ab li nga xamante ni moo di ah, conférence de presse daal di xamal li nga xamante ni ah, moo di catastrophe boobu yi nga xamante ni moom moo xew fële nga xamante ni rek mooy ca Gambie ba tax na daal jamono ji ñu wax ak yéen sax ñoom ñu ngi daal di amal li nga xamante ni moo di rek ab conseil des ministres extraordinaire non bi nga xamante sax ndiki démb ci ngoon gi sax lañ ko daal di amal pour rek daal di wax état catastrophe naturelle bi nga xamante ni euh, moom moo daal di euh, dal ci seen euh, kaw loolee nag mooy ndax képp xibaaru tey leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak Sénégal te leen wax nag bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy vidéo au temps réel